merci beaucoup euh, à tous les téléspectateurs de Walfadjri euh, encore une fois am na yaakaar ni euh, la sélection vous a plu kenn ku nekk jàpp bu baax nit bu yeewoo rek ne woon ci sunu kàddu moom lañ koy yóbbante sa su ne muy bàyyi xel ci it kun fa yakkoon Jalla Jalaalo wa Azel Kamal ci lim ñu may ñu tal fekkee bien sûr lool bokk gu nu bokk ci njabootu Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam ak comme ci ku nekk muy kilifa diine ñu ngi ñu ngi seen keppaar bien sûr fas yéene ne rek sax ci moom ndigal waaye di daw bu baax lépp lu mu rek ci tere ndax bugguñoo mbëkk mbugal di profité wu nag di ziar bu baax Adjatou Penda Diallo nga xam ci macha allah tous les matins c' est pas facile de se réveiller tôt le matin ñëw ànd ak ñun ci biir programme Walfadjri ànd ak euh, koo xam yaa ngi du sœur matinale jàppal ni ñu ngi lay bëggee bu baax euh, ajaratu béti mbub euh, de même waaye te euh, Ousmane seen séréer bu dégg wolof ñu ngi koy bëggee bu baax di bëggee nag fajri ndax jàpp te bàyyi nee naa la as gor rek moo ko mën te nit dina la téye ngëpp la nga foog ni du fa fekk ay la yeween communication amu ca mais lépp lu nu cof ci yow rek day ñëw taxaw présent xam ni it moom euh, dafa am dévouement ci ngëm-ngëm bi nga xam ne xolam moom moo bëgg wal fajri moo tax saa su jàppee wal fajri rek du jël télécommande bi daf ko fay bàyyi yoor yoor yi nag gars yi nee nañ ah, macha allah non stress ba tax na kum ci ku nekk ngay retrouvé wu ci biir émission bi maa ngi ñaan suñu borom kun fa yàkkoon soxla boo am rek yàlla na faju tey la lan alxames lan moo daan am découverte boobaak léegi lu tax déggaguñu donc il faut waaye tey damaa am xale boo xam ni man dama ñëw taxaw gisuma sax mais dafa jolli ma dégg baat ba xam nga ñun Walf moom eh, daf ci am bis yoo xam ne ñi nga xam dañuy fexe ba liy nelaw ci ñoom ñu ànd bokk ko yeeg ñoom ak ñoo xam ni ténor yi la muy kooba yi tey nag découverte bi dama am nag koo xam ni te boo demee Bambey di nga fa fekk we juram ñu ràññee ko fa lool muy euh, Cheikh Leba Samb Cheikh Leba Samb nag tey doomam laa invité muy euh, Elimane Samb ma koy faral di woowee Elimane Acheke donc dama koy bàyyi rek mu nuyoo laata ñu fi cëral ci waxtu te xëcc jëm ci jeex njëkk Elimane maa ngi rafetlu woote bi nga daw si ñëw et eh, c'était facile waaye li nelaw ci surtout moom mu bëgg koo yee bu amee ku ko ko yeele am naa yaakaar ne it eh, du biddanti benn yoon askan waa ngi lay seetaan ndeysaan dëgg la ci avance maa ngi lay nuyu li mm-hmm. la bëggee di rafetlu aussi émission bi mm-hmm. ndaxte yow da ngaa ñàkk ñaan da ngaa baax macha allah nit koo xam ne kenn xamu ko. Mhm. muy percé di di di di jëngu ci aar bi di fayet. Mhm. nga bëgg ko génne te yàlla rek tax. Mhm. Euh, yow amuñu lu sa ma ci profité occasion aussi di nuy waa Pikine. di nuyu aussi Bambey gi ma dëkk. waaw maa ngi nuyu Sénégal gépp daal. waaw mais attends Elimane euh, nga way da ngaa topp jeunesse bi pour bëgg a doon waykat wala boog da ngaa am. ni la xaalis baa ngi nii duggal ci euh, euh, ci bagages yi waa ilaa li may faral di laaj nit ki nit ki moom bu xisee ba juddu li ci deretam mënatu koo daw ban la ci ba tax nga affronté yoon non dafa nekk ci sama deret xam nga xam nga man euh, dama bokk dama dama sant sàmb mhm. bokk kóonooti géej saafaani géej ma njël benn géej géej géej biram sàmba gànn mbul di sama maam kon boog fu ma jaar ci kàttanu yàlla xam naa ne dinaa woy ndaxte doomu géwél laa c'est le sang c'est le sang oui donc loolu moo ci yow deret ji faf yee ko la mu ca ci wàllu ndey nag nag ma xam koo wax. waaw sama yaay euh, dama ko woy ci single muy toole mi ci leen xam nga toole mi ci mbaaba leen mooy géwél yi nga xam ne en fait ñoo sant. comme maamu àlla Seck. ok. Euh, bi daan feccal Youssou Ndour. waaw ma ci profité profité occasion aussi di nuyu Youssou mbaa jigéen Ndour. Mhm. ndaxte moom ndeysaan nit la koo xamante ni. Euh, ñun ñëpp ñun booy yëpp moo ñu moo référence suñu référence la dañuy roy ci moom. non D'Artagnan référence barki Seydina Mohamed di ko di ko ñaanal jàmm euh, yàlla dogal aussi ma def single bi way way ba pare nag sa loxo ci kaw ci suuf ak ci bool bi. mais defal ndànk <laughs> xam nga lu ma gën a bañ ci àdduna. Hmm. jàkkaarloog jëmm mooy waaxu quoi man bëgguma ko may waaxu bu ma waaxu dama bëgg ñu benn benn ko parce que it euh, du lu duuf ci nag yu lépp xaj ci cin te def ko benn par benn ku la kumpe woon yow ah, mën na fee doxe ne ah ok jëmm ji kot buñ ko waree mën a puus mook bërigo bu diis souvent moo koy faral di wax ñoo mm-hmm. yem ah, boo tegee rek day wàcc bu ma la doon loo sa baat li wolof naan weddi gis bokku ci baa ñiy déglu mën a témoin nooy def adduniya ko beelel jeere ay duniya ko meri mere yi ca maas mm-hmm. adduniya ko beelel jeeri mm-hmm. duniyakol laccel jireyi moƴi allah larat nam toroɗo samba gaari jammayi imma moƴi baba moƴi ɓingal bonettama ay richa tol futa toroyi tawi lay woyi siini mam yino doylooshi alaji malik yino doylooshi omar futiyu taaloy almami abdoul hadir kanay sen mam ceerno souleyman baali sen mam Cerno Hamdi Rabi Njeej borom mi dina njëj ba ci Fuuta mooy seen maam Cheikh Omar Futi Taal yi seen maam torodo waaw torodo torodo torodo yi torodo yi torodo torodo samba ngaari jama camaas ay waay bu njaam yàggee léegi nga war fee bu tukki yàgg léegi ñambar feeñ ca la ca maap mais sët a koy donn ci moom yaa doyloo mam fàllu laay Eh, est-ce que ndey bu sooyi ay waayi bàyyi mbakki la réew mi aminata looyi mooy yaayi sëriñ baara mbakke yi mm-hmm. awa bu so moo nampal sëriñ fàllu abdou akim mbakke mi may waayi mm-hmm. sëriñ moustapha mbakke yi bàyyi ba mm-hmm. sëriñ moustapha mbakke yi sëriñ basiru mbakke yi baayam sëriñ basiru mbakke caama sëriñ Serigne Touba Mamor Anta Saley baay ba Mamor Anta Saley sa Mbàkke baayam maam Balay sa Mbàkke ay maam Maara Mbàkke baay ba te maam Maara Mbàkke moo moo boole meññ Mamadu Xaadim Rasuul loolo waay eh, ba kër dara maa ne sa maam. wayal ma ci sa wàllu yaay fi nga bokk. tuuli baabaleen. tàccu kur di gën sama yaay yi kinne seen tuuli baabaleen. tuuli mi ci baabaleen. toli babaleen kaccu korɗegen sama yayi kinne sen tole babaleen tole mici babaleen tole babaleen kaccu korɗegen sama yayi kinne sen tole babaleen tole mici babaleen ay eh, dama lay téye foofu rek eh, xam naa ni teg nit ku eh, gis rek ci way juróom wu jigéen rawatina jëm ji nga xam ni eh, mooy eh, Elimane Samb dafa bëgg lool yaayam gis nga ba ma ne ko sa wàllu yaay rek gis nga di way di ree eh, loolu dafa nice dafa neex par transition nous allons suivre aussi ce que nous propose encore Adjaratou Penda jàlloo ñu joxe tuuti rek ci liggéeyam nee na benn caamaas benn bëñ daa war a weex ndax ree day bette loolu la ma wax de te it nee na ma du nenub kenn moom Elimane Samb ay waxam la nee na ma bëggul ku ko baxal bëggul ko ko omelette na ko ñëpp mayonnaise parce que xale la boo xam ne euh, xale ñëpp la te pare na pour carrière am nan ñam tuuti ci vidéo bi ñu xool tuuli baabaleen tàccu kur di gën sa tuuli baabaleen tuuli mi ci baabaleen tuuli baabaleen tàccu kur di gën sama yaay yi génne seen tuuli baabaleen tuuli mi ci baabaleen tuuli baabaleen tàccu kur di gën sama yaay yi génne seen tuuli baabaleen tuuli mi ci baabaleen léeg-léeg biram leeli mbay saar ma jigéen mu sër sama kër ndey ko seen seen nañuy woowe sa baay xadi sekk mooy sa yaay waa siin tey laay woy seen doom mbir seen ku ma doo seen juuf mooy seen maam may gor ju mooy seen maam oli géey sama yaay jëniŋ oli seenay sama yaay suwaado seenay sama yaay bu liggéey sama yaay la ko doo damay sagi limaan siire dembaali maxtaaro yi yaayi di yi siiri seex may mbutu sow sama meey chef de canton la Kaolack nangaan ngi sutub Cheikh Omaro yi fuutiyu taal umiliya ngi teem gay si a ngi Bakel ontu yàlla ngi nangaan yaayu ummi sayidu mu kemi dina xaar seen maameey wo seen maam mu àndoon ak Cheikh Amaro yi ci jaar ji moo rëdd tata ci ñoor moo xeex lambeetu ma Kun Malik Si Daawuda Usmaan sa maam la yéeli ban na sa la asta yaayi di golaa mbay mu ci jugi ci gorox na nga ak nooyi wawa wawooyi sama yaay ma sekk ak maamu tëw ak ma yëram tëw yaaya booyi mu ngi ci jaaka njaay ànd nañ ceeg mu Cheikho yi doomu ndey Alioune Seck Alaaji Asan Fall sa baay la loxo ci kaw sa loxo ci suuf sa loxo ci bool bi di ko ci batar di ko ci batar di ko ci batar est-ce que est-ce que ben il faut le dire hein Penda il le dire Penda franchement am na ci ay jëmm yoo xam ni te il faut que nous le disions à haute voix dañ nekk ay jëmm yoo xam ni ay révélation la te it euh, ñun war a mën a pousse lañ eh, def naa ni yéen ñi nga xam ne yéen a may yéen ay consommé Walfadjri di seetaan télévision bi tey découverte bi ñu am euh, def naa ni ci baat bi à vous de juger euh, Elimane nga wax son bi mi ngi tudd Elimane Acheke Elimane Acheke ci gi mu yaakaar euh, lu ñuy lekk la parce que gis naa ci fin bi xaw ma waajooju kan la euh, waajooju sax miin naa ko parce que bari na ci bi ngeen ñëwee moom yéen a ànd muy Modou Modou euh, Modou aventure gis naa lu mu feeñal ci aceke bi mais lu tax nga tuddee son bi aceke waaw ah, mais xam nga parfois ni boo dee woy dugal ci tuuti tuuti kaf mhm. parce que woy bu diglewul yeetewul rek mhm. yaakaar naa ne ay nax la ok te ngi imposer Sénégalais yi loo xamante ni muy acceke muy fecc bu bees. Mhm. sa loxo ci kaw ci suuf ak ci bool bi comme comme waaw loolu la rek sa loxo ci mhm. kaw sa loxo ci suuf ak sa mhm. loxo ci bool bi. action nga ne damay neex neex neex damay neex. <laughs> mais damay gis ci neex neex neex damay neex gars yi taaj. waaw damay neex sa sa parce que ñoom xam nañu acceke lu neex la. da ci profité occasion si du nuyu Ivoiriens yëpp. ndaxte ndeysaan sama mbokki. Ivoirien ñoom dama leen bëgg. da nga demoon Côte d'Ivoire. moom sama manager moom yàgg na. Côte d'Ivoire mooy Modou mooy Modou aventure. waaw ba damay gis souvent am na benn complicité bi yéen lan la. moom dafa sonn lool say mbir. waaw dëgg la yaa ngi door mais ni mu door ak yow. ngelawaay yal nañ fekkee ëllëg waaye bu ko mos a fàttalee parce que dafay sonn ci seen mbir maa ngi rappelé au jour bi muy indi fi vidéo bi ah, yéega yéeg beeg monté beeg muy muy bàyyi xel ndax donc coono yooyu bu ko nit di daj ci koo xam ni dese nañ koo xam te xam naa ni yow lii déjà am nga maitrise parce que ku fi toog dama koy njëkk a wayloo te tey say note romb na moyenne ndeysaan dëgg la ci ama mhm. sant yàlla rek mhm. sa xam ñun tamit ay xale lañ rek mhm. euh, nekk ci banlieue bi yàlla dogal ñuy woy euh, ndeysaan mu nekk suñu deret ñu nekk ay géwél nekk ay mais mais ci côté jàppale da ngay gis taxaw sa à chaque fois waaw ah, moom da ndeysaan daf maa yéene ba pare di ma jàppale yàlla boole ñëw Euh, muy sama ménager di ma ménager di ma jàppale ci parce que xam benn benn lam du yëngu. Mhm. te kenn nit mënul boppam dara. tamit dëgg. te képp euh, ku ñu jàppale rek moom moo fi nekk mais njàmbaar. Eh, ci jàppale boobu tey nga taxaw génne sa premier single. ma génne sama eh? premier single waaw. nga tuddee ko. ma tuddee ko Eliman Acheke. Eliman Acheke est-ce que pare nga pour génne album bi wala da nga nar di ko def par benn single. teelu ko non si bi. ma ah, ah. maa ngi ak ay morceaux. Mm-hmm. yoo xam ne Thiamas euh, sam papa comme communicateur la. Mm-hmm. ma di ko déglu di di lëlu aussi. parce que mm-hmm. man yàlla dogal na su ma dee génn sax moom dafa may surveiller dama naan ko lii lu mu doon bitig ba sax su wala dara. daan ma foo demoon. ok nga xam kon kooku ñu ngi koy suivre. Mhm. Euh, yàlla dogal aussi ba sama tànk aussi guddul. fu ma jëm fu moom mii xam na ko parce que yàlla dafa dogal sama papa dénku ma ko. ak suma mhm. frère yi maam Cheikh. Mhm. ak suma beneen frère. Jalbel. am bi la nekk. ok mais lan moo manqué fi mu ne lan moo manqué réellement pour album bi taxaw sur le marché. waaw ay moyens rek caamaas. ay moyens. waaw moyens a nekk doomi Pikine te it euh, njortu naa ni maag askan wi seetaan ñi xamoon ndem si yàlla ndongolo. wayal ma tuuti benn morceau Ndongo Lo rek dama la ko ñaan benn rek boo xawoon ni mos nga ko xaw a forantu rek dama bëgg à vous de bu baax a baax dara gënul doole dama dof am lu ma dal am mbëggeel looy ci sama xol càmmaas di saf lu neex jin ma mbëggeel wuy mbëggeel mbëggee la baari dikkal dara gënul neex nga jàkkarloog ki nga bëgg dara gënul neex ngeen di waxtaan ci bët yi mhm. dara gënul neex ngeen di waxtaan di retaanoo caamas siiri ca Pikine dama lay wooy macha allah macha allah donc euh, jam faama mbéta yaa booy caamas nawle lu ñaaw la ay waay mbëggeelooy wa wa doole caamaas du manding bi du joolaa bi gis bëgg bur yàlla koy def ci jaam caamaas mi nit ci jub ko lay doon kenn du nam ko xamul dëgg waay mbëggeelooyi mbëggeelooyi mhm. mbëggeelooyi caamaas mbëggeel akabar yi doole woo man da dama lay waay. en tout cas bu doon ku ñuy sélectionné équipe nationale man xam naa damay woote ñu koy bind leen turam la ma ca jaaxal rek mooy doole ja mu war a mën a àndal pour vidéo bi te yaa ngi Pikine pourquoi pas yenn démarches yi parce que Pikine ay doom yu baax fa nekk. ay jëmm yoo xam ne yàlla dénk na leen teraanga. te it dañuy sawar ci ñu mel ni yow. fii des temps ak ndongolo. tey li ko gënoon a may doole pikin waa Pikine seetaanuñ ko ci lépp lu mu rek dañ ca daan taxaw di ko ca jàppale tey boo gisee jëm jooju di nekkaat ci biir xolu doomu aadama yi te way nga mais gëm naa ni donte benn nit tey tooyal nga xolam ci nu mu jigee woon jëmm jooju même bu dee na ba Fall eh, damay bëgg des fois nga jóg ànd ak Moodu jar na sax ba ka nga ka nga bëgg mu jàppale la te mu leen la ni kii ku mën a way lay déglu booy dugg ca kër gi sax départ ak way parce que bu ñëpp defee yenn saay mooy gën ngay xaar kenn rek def te aussi lii dafa ne ci yow dëgg la te jamono jii mun naa ni ne la mais nag dafa soxla ñoo xam ne dañ koo war a gunge tey bu doon da ngay da ngay jooytu Pikine wala nga jooytu yenn responsable amuloo occasion bi yaa ngi toog Walfadjri nan ngay leen di bàyyiloo xel pour ñu bàyyi xel ci yow waa mais maa ngi xam xale rek Hmm. nekk ci banlieue bi yàlla dogal aussi ma nekk Pikine di bay sama waar hmm. mais maa ngi ñaan rek ñu jàppale ma hmm. parce que xale laa gëm naa li may def te bëgg naa ko instant bi studio rek nga soxla mais wax dëgg yàlla doole juma ma génnee li nekk ci man dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg aw ma ko dégg naa la parce que caamaas ku ñemee dañ laa dey dégg naa la man une fille des temps doguma la yàlla bu la dee dog ma nekk rajo oxygène oui oui atum dem màggali tuuba dëgg la bi ma toogee ci xabru la ma fa ñaan ak la ma wax ak góor googu ma ne ko de am na lu ne ci man de wóor na see Cheikhul Khadim bu ma sañoon nga may ma occasion fu ma ko wanee ngir sax donte ci réew mi ma ne ñu xam ko te tey dafa ball kon jëmm yamuy jaar du doon ca waaja du doon ca kanga naan mais da koy jaarat ci ay jëm mu jaar ci saa njóogu saa njóogu mu jaar ci Aïssatou Diop Fall aca déclic bi paax na donc ñu gëm ni yenn saa yi nga wax ci sa xol te lii nga wax nii xol nga waxee parce que mi ngi ci yow dëgg la te amuloo doole ci. ndeysaan dëgg la te tu as besoin nga dugg studio tey. ndeysaan nga représenter dignement le département de Pikine. ndeysaan dëgg la donc nit ki des fois feebaram dana toog ci rajo télévision bi nga xam ne. nit ñee ko wax de. waaw ñu ne Walfadjri lépp lu muy jafe-jafe nit ak i soxlaam. bu toogee yenn say junj ko fa jëmm ngi toog di xaar ngir exécuter ko. kon yàlla na nga dal ci émission bii bu jeexee. ku la woo. pare pour produire la. ndeysaan amin amin waay def naa loolu mooy sa yéene. ndeysaan liggéey rek laa gëm. waaw loolu rek nga soxla. ndeysaan liggéey rek waaw liggéey rek. bu ñu ko defee rek dinañ liggéey quoi Europe liggéey laa bëgg parce que dama bëgg Sénégal. Euh, ñu xam ma ba pare. dëgg la gën ma xam bu baax. Uh-huh. balaa may génn parce que sama papa sax daf ma daan faral ilimaan boo tukkee. Uh-huh. pourquoi pas boo tukkee di fa des boo tukkee def la nga fay def ba pare ñibbisil uh-huh. wallaahu azim loolu la ma sama papa di faral di wax par par téléphone saa yoo tukkee bul fa yàgg ñibbisi waatal eh, parce que yow. suñu ministre de la culture. non xaw ma Mbagnick Mbagnick. waaw waaw Mbagnick dama yoroon sport. ndeysaan Mbagnick. nee ko mu mu mu teg la loxo. waaw mais Mbagnick. waaw mais ministre bi. nu dugg Pikine teg la loxo. naan naan ma Mbagnigoo yi waaw waaw Mbagnigoo yi teg nu loxo. jeex rek. ar bi métti na yi camaase yi. trop woo woo woo woo yi. bu nu jàppalee ci barke Muhammad rasulilaay gëm naa ne li nekk ci ñun ñii dinañ ko génne. laay lay la la koy jooyle maa ngi jooyle ci Prince Art parce que label la eh, label boobu kii produit la boo xam. mun naa ni ku ci dugal rek gëm naa ni euh, la nga ca soxla woon da nga ca fekk noonu laa koy lancé renaissance bu euh, Rufisque muy grand Jules Cissé Souleymane Gueye Cissé ay jëmm lañ yoo xam ne ñoom ñu mel ni yéen la ñuy wër ah, euh, pour produire leen ah ah donc maam di nuyu aussi maam Góor ah, maam Góor Diasaka mm-hmm. di nuyu aussi ñoom grand Doudou mm-hmm. Tëngéej Ah, euh, di wax ni it Ajaratu Penda Diallo bokk na ci li nga xam ne cërale woon nañ ñu ko fi tey ti waxtu ngir ànd ak yéen ci découverte waxtaanee ak jëmm ji nga xam ni fa nga ko fekk franchement defe naa ni euh, nekkul lu ngeen di soobantal ci li ma ko jël foofu indil leen ko ndax foddat na ndax test bi jaar na yoon il faut ñu auditionné la il faut nga way ndax doo ténor doo kooba découverte nga te adduna bi war nañ la mën a découvrir mais surtout teg la loxo grand Lamine fay xale baa ngi nii teg leen ko loxo mais surtout Papis Konaté teg leen loxo xale bi euh, jàppale leen ko surtout waaye di ko yóbbante am di ngeen jàppale xale bi parce que ñoom ñëpp ay label lañ yoo xam ne ñu ngeek ay label te mun nañ la jàppale bu baax ginnaaw loolu nag euh, sa dernier kàddu ak yéene bi nga am ak fi nga nam jëm dëgg la mhm. xam nga yàlla dogal na sax suma premier anniversaire. maa ngi ko def woon euh, ex ex tropique. Gabana. la euh, le onze bi passé. waaw fii waa euh, Pikine yëpp ndeysaan deewoon nañ fa. ok dellu yëmb jour boobu sax ndeysaan daf maa jaaxal. may nuyu aussi suma entourage. Mhm. ñi nga xam ne aussi ñoom ñoom. waaw non yàlla dogal na ah. Pikine moom am na ci ñoo xamante ni surtout ci côté marché zinc bi ma nekkee waaw commerçant yi fële waaw ndeysaan ñoom ñëpp man la ñuy béggee eh yéen commerçant yi marché zinc bu bu bu bu Pikine yéen laay wallaay xale bii jar na daajal condamné mënuma leen a fay samay wax nag a fay quoi te bu ëllëgee di ngeen ko gis li ma leen wax parce que jour soirée boobu Thiamas ñoom ah. ñëpp dañoo mobiliser ah. ñëw te xam nga jour bi ma ko tëgg du samedi mercredi laa ko tëgg mhm. Euh, ma ci profité occasion di nuyu Ousmane bu tropique mercredi laa ko dëgg mais teewul dafa fees dell franchement waa marché bi bëgg ma lema te yàlla rek tax kon daal yow ci ni ma tënkee boo sañoon at mi balaa jeex nga am sa album bu ci ndeysaan waaw waaw ah. ko yàlla nag ñaan naa ko yàlla trop ñaan ko Sidi Lamine mu jàpp ci te dama bëgg nga woyal ko Sidi Lamine ooy ñas ñas ku ma Abdalaay ñas Sidi ay Sidi Lamine ñas ñaalu géy naa ko allah yeey siida siidi ñas laay ñas ku mbaab ñas cheikh al maam baay ñas siidi dama lay ajara tu penda jàllo géy lay lay la laaw caamaas mu mam fàllu laay yi na bëggooy si di lamin ñas ñas ku mbaab dalaay ñas kon nag baay ñaseey borom mi dina baay baay ñas laay waay Euh, bien sûr euh, kenn ku nekk euh, am na yaakaar ni nga bokk ci taalibe bàyyi yi jàppal nit lii ci nga bokk boo dee murit à travers la mu wax ci caamaas bu Serigne Fallou rek def naa nit ñoo bokk yoon wi di profité wu di ziar nag. suñu bokk yu baax yi nga xam ni ay la yéwén dañ ñoo bëgg lool te it yàlla mi nga xam ne moo am fay yàlla na leen fayal boppam di kontaan nag lool eh, ci ñi nga xam ne ñoo sori waaye te eh, li wolof naan jëmm dina la sori waaye jàppal ni xool dana la jege ndax nit dina la sori lool fekku la jege la eh, mu mel ni dernier kàddu gërëm ak sant damay nuyu ñu doon bër damay nuyu waa Pikine parce que franchement parler man aw ma lu dul ñoom mhm. euh, tëgg mu fees yombul suma frère euh, Maam Cheikh euh, moom moom mooy sama taaw mooy sama taaw moom mooy sama taaw papa Euh, mhm. ma ci profité occasion di ko nuyu moom tamit mu ngi Pikine mhm. bi may ñëw léegi rek ndeysaan santal ñëpp gërëm leen parce que waxtu bi jeex na di gërëm suma ménagère yi ah. di gërëm bi nga xamante nii ñoom ñoo may jàppale mhm. di nuyu aussi waa Pikine caamaas man gëm naa ne Pikine nga ma nekk aw ma fa noon ñëpp ma bëgg mais nañ la financé jàppale la barki Seydina Muhammad ñëpp ma bëgg mais nag ku ñeme dañ laa dëy bàyyil ba ñu dëy ma nga xam ne macha allah waa Fuuta maa ngi leen di préparé lu doy waa ndax almaami Abdul Xaadir Kan Cerno Souleymane Baal Cerno Hamdara bi Njaaj borom Medina Njaay bi te Fuuta Cheikh Amar Fuuti Taal Cerno Samasa mhm. ñoom ñëpp dama leen ne bindal morso ba teg ki nga jeexalee sama xarit ñoom ñëpp dama leen ne bindal morso ba teg sama dëkk tamit bëgg naa faa def festival bu doy waar boo xam ne dama koy may sama waa dëkk ndaxte nag fa nga juddoo yaroo fa waroo leen a fàtte mhm. muy waa Bambey ma di leen sant di leen Euh, merci beaucoup euh, euh, di kontaan ci moom bu baax Elimane Samb la tudd eh, bàyyi leen ci xel muy doomu Cheikh Leba Samb di leen jox rendez-vous incha allah semaine prochaine devant votre écran de télévision Walfadjri tout en remerciant aussi du côté de la régie Adjaratou Penda Diallo di bëgg ci yow bu baax ak nga xam ne moom mooy maam Sidi bëgg lool Serigne Touba la mu ci yéen mooy kenn ku nekk saa yu yow soxla la am yal na yàlla faj soxla doomu aadama yi ñu waajal nag jëm foofu nga xam ne fa taal ba tàkkee. fan la taal ba tàkkee taalu Mouridia mu ngi tàkkee Mbàkke Kajoor euh, tous les chemins mènent à Mbàkke Kajoor lépp luñ fa ñaan rek ci barke Mouhamadou Lamine Baara yal na ñaan di kontaan ci ñëpp borom lépp ak fépp yal na may ñëpp lépp lu ñu soxla arrivederci